ginnaaw bañ leen nuyoo siyaar leen ñu ngi leen jaajëfal di wax ngeen gën di ji ci seen bi te gën di partage vidéo yi te di ko sam tey nag ñu indi leen mbirum kànnaar bii nag euh, képp koo xam ne am nga ci moom soxla moo xam muy góor wala muy jigéen wala koo xamante ni am nga loo yittewoo ci moom te nga bëgg mu fajal la aajo ak aajo lu mu mën di doon mën nga koo def ah nan ngay def da ngay bind suub mën bukk na moom ñun foofu laa yer joxoon da ngay bind yaa ngi ko bind juróomi téeméeri yoon 500 fois. boo paree nga teg ci salaatul faatihi téeméer yoon rek nga koy def moom salaatul faatihi soo paree nga bindaat sumun bu ko moom foofu laa yanqiluun ak sumun bu ko moom foofu laa yatakallamuun ak sumun bu ko moom foofu laa yubshiruun ñoom da nga koy bind bu ci ne juróom-ñaari yoon nga koy bind nga def ko ci uh, ci caabi ji nga koy def caabi ji nga koy tëjee moom nga koy def soo paree nga nga tëj ko uh, wax li nga bëgg ci ki nga fay tëj nga dugal ko ci. ba pare nga euh, dem bi ci géej nga sànni caabi ji denc xomb li lépp loo yittewoo ci kooku noonu ak lu mu mën di doon lu mu mën di doon loo ci def moo xam muy góor moo xam muy jigéen moo xam koo xam ne da ngaa soxla ci moom patron wala lu mu mën di doon rek boo ko ci defee suñu borom daan la fajal aajo jooju ak lu mu mën di doon jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu